Tantang ak ngërëm ñeel na leen mbokk ngi leen di ziar suñu première publication ci atum 2021 bonne et heureuse année du souhaité ñep atum jamm atum xewal atum natangé 2020 dak 2021 dak ci at yep 2021 don at go xamantene lepp lo loo metti won na doomu adama ci 2020 li nga xamantene moy 2021 yalla na doon gëneel ci ñep xewali sawan bawan ci doomu adama yi ñi nga xamne ciabi caabi leen fi ci ginaaw yalla na leen yàlla jàppale ba ñu génn ñi nga xamantene euh, dañu génn àdduna fu ñu tëdd yàlla na suuf oyof seen kaw yàlla na nu yàlla jéggal suñuy bàkkaar yàlla may ñu xolub muñ yàlla yokk projet yi yàlla yokk xam-xam gi mën gën gi waaye itam yàlla yokk kàttan gi yàlla musal ñu cat seytaane yi noonu rawatina Dakar instant yàlla teg ñu loxo macha allah gis ngeen liggéey bu am solo bi nga xamante dañ koy présenté wala lu ñuy wax ndax gis ngeen liggéey bu am solo bi nga xamante ne ñu koy def ci ëxlu diine yi déeta waaye li ni moo itam li nga xamante ni moo di événement ñoo ca mën donc li nga xamante ne mooy 2021 li leen réserver ci ay surprise bari na saa su ne rek continuité lay doon mbégte ak bànneex la ñuy am àndaate ak yéen yéen ñi nga xamante ne yéen ñu safoo yéen ñi nga xamante ne yéen ñu taamu bëgg ñu lool chaque jour ngeen di ànd ak ñun ci actualité chaque jour ngeen di ànd ak ñun ci entretien chaque jour ngeen di ànd ak ñun ci dalal jàmm chaque jour ngeen di ànd ak ñun ci sax à l'instant chaque jour ngeen di ànd ak ñun ci seen émission bu bees bi nga xamante ne mooy coow li gis ngeen li nga xamante ne noonu lañ tëjee at bi 28 décembre ci Serigne Saliou déete waaye démb gis ngeen li nga xamante ne def nañ ko si spécial 31 de 31 décembre tey nag ñu andi leen actualité numéro 1 de l'année 2021 mu nar a doon loo xamante ne ay innovation yu amam solo yi nga xamante ne mi ngi leen ciy xaar ndaxte ni naa koy feeg yéen a ngi bëgg rek dañ ciy xuus bu baax a baax tey suñuy actualité dañ koy door rek li nga xamante ni mooy actualité people et buzz suñuy ndaanaan ki ci mel ni Kiné Lam ki ci mel ni Kiné Lam bu dogo kenn dootu ko présenté àdduna wërngal képp alors gannaaw bu ab entretien nag Kiné Lam mi ngi wax ne moom dootul tëdd ak beneen góor ci kaw lal ndaxte li nga xamante ni mooy dogoon na mu meloon ak moom muy jëkkëram joojee nga xamante ne mu ngi koy jooy ba tey noppeegul xanaa di ko ñaanal suñu borom yërëm ko te xaare ko àjjanay firdawsi ab accident gu méttee métti mu am fële ca caajaay ñeenti xale yoo xamante ne ñoo bokkoo benn famille ñoo daal di génn seen àdduna ba tey rek bu ñu defee bilan d'accident 2020 jéggi na dayo lool ba tax ne 2021 bi liñ ciy ñaan yàlla képp ko xamante ne chauffeur nga yaa ngi daw ci tali bi na nga daw ndànk te moytu bu baax a baax a baax a baax itam nouvelle bi doon loo xamante ne lu tiis nouvelle bi doon loo xamante ne bett na ñëpp waaye itam mu doon loo xamante ne ah, noonu lañ tëjee at bi gannaaw ba joy jooy Seyda Mariama Niass noppeeguñu ki nga xamante ne itam mooy xalifa Daaru Musti daal dinay génn àdduna nag ñi démb ci 31 décembre gi ci suba si noonu mu doon loo xamante ne nag ah, metti na lool ki nga xamante ni moo di sëñ Abbas Mbacke di doom ci maam Thierno Birahim Mbacke donc nag mu doon koo xamante ni macha allah yàgg na lool lool lool ci jal bi di ko ñaanal rek yàlla na ko maamam ji Ahmadou teeru waaye itam yàlla na ki nga xamante ni mooy suñu borom subhanahu wa taala taas ñu ci barkeem. ba tey dañuy wéy di wax ci li nga xamante ni mooy démb discours à la bi nga xamante ne am na ko Sénégal ñëpp doon ko xaar waaye ñi gis li nga xamante ni mooy son excellence daal dina koy teg ci 2021 bi daal dinay annoncé toll ci ñeenti hôpital ak waaye ak li nga xamante ne ne mooy service de réanimation waaye aussi tam dina taxawal lu toll ci juróom benn centre yoo xamante ne moo di jëm ci wàllum hémodialyse ndax gis nañ li nga xamante ni moo di hémodialyse atum 2020 li mu far ci doomu aadama jéggi na dayo waaye gannaaw bëgg suñu benn naataangoo laajee ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllum éducation sexuelle yooyu nga xamante ne jamono gi gis nañ ci œuvre yi gis nañ ci li nga xamante ni mooy euh, image yi nga xamante ne mi ngi am te ñu ngi koy jàngale ci li nga xamante ni itam moo jëm ci école yi pour suñu doom yi nee na nañu xel na xel yëpp dal te xam ne mbir moomu nekkul loo xam ne day law fii Sénégal ñun dañoo am suñu tradition dañoo am suñu culture ba tax ken kenn mënul tax ba duñu wéele suñu tradition ak i culture naka ni démb itam jeexatalu at gi itam ca TFM yëngu woon na lool ndaxte ki nga xamante ne mooy Biram Ndour moo jàkkaaroon ak baayam ki nga xamante ne moo di Youssou maa jigéen Ndour daal di koy tagg tagg yu am solo ba sax ba ki nga ne Youssou Ndour ya dafa ki nga di papam Youssou dur nit daf koy def dara mu xam ne kii mi ngi koy def dara bis boobu la koy gën a jàpp deetawaay Biram Mansour daal di ñëwaat ci li nga xamante ne relation ak papam nee na moom foofee nga xamante ne toog na fa di place boobu mu en tant que directeur li nga xamante ne mooy groupe future média nekkul ay doomu yu Ndour a tax mu toog fa waaye daf ko prouvé waaye itam da ko liggéey mu doon loo xamante ne am na solo foofa toj na rajax gannaaw naka ni démb nag c'était la guerre nee naa ko ci kanam tuuti dinaa ñëw ci li nga xamante ne mooy tendance beeg chiffre bi alors ginnaaw bi Sidi Diop ak Subatel nekkoon fële ca Sen TV yu suma jigéen di wax nekkoon ca TFM Wally Ballago Seck nekkoon fële ca télé euh, nekkoon ca 2 TV mi ngi noonu gannaaw ba Sidi Diop jeexalee show fele ci Sen TV da daal di summeeku nag ba jek dem fek ki nga xamantene moy mooy Youssou Ndour vers 4 heures ca télévision Futur Média alors ñu def duo bu am solo ak ñoom ñaar Youssou Ndour ñaanal na ko ne ko ni yow da ngay dem ñëpp naan qu'est-ce qui se passe entre eux mu doon lo xamantene jamono gi mom la aduna xeyé actualité baangi ngi gis nga mi ngi noonu nak rang ba seere woon na lol ci diggante Youssou Ndour ak wali Ballago sek Youssou Ndour ba mu ci 7668 vues wali sek nek ci 7762 vues ñom ñaar nak nee ko ay point d'écart ñaar dong leen wutale woon ndax Wally Seck mi ngi jeexal ci 3 heures 25 minutes waaye Youssou Ndour daa prolongé ba 4 heures gis ngeen li nga xamante ne démb xew na fa humoriste kenn daal di summeeku ba mu ci 3 heures et quelque fële ca seen TV déetawaay daal di fekk Youssou Ndour tur seen ñoom ñaar ñu duyoo déetawaay am ay kàddu nag yu ko dénk waaye Wally Bass Wally Ballago Seck ba mu dafa ne mottet ñibbi waaye ba mu tam kër ga ñu daal di koy accueillir accueillir goo xamante ne jéggi na dayo daal mi leer xam nañ kan mooy waaj moom itam mu doon koo xamante ne donc euh, en tant que actrice ak actrice donc wi mu nekk ci boobu yi nga xamante ne mooy maîtresse d'un homme marié Racky gis ngeen ko ci jour 31 décembre bi nu mu solo di wane li nga xamante rek moo di bëteem ki nga xamante ne aussi tamit moo jëm ci wàllum éducation sexuelle gi Mari Sagna daal dina ci andi ay euh, te ay kàddu yu amam solo nee na fi nga xamante ni moo di Sénégal dañoo am ab ministre góor jigéen moo tax boobee coow di éducation sexuelle ñu bëgg ko fee teg ay kàddu gi Mari moo koy xamle Déthiawaye nag nee naa ko li nga xamante ne mooy entretien grand entretien bi mën ngeen ko seetaan sur Dakar Instant gannaaw bañ ko laajee ci wàllum troisième mandat ak ki nga xamante ne mooy relation ak Idrissa Seck nee na mook Idrissa Seck amuñu lu ñuy dil amuñu lu ñuy peen Déthiawaye nee na li nga xamante ne mooy troisième mandat Macky Sall nee na du ci wax benn yoon te ku ànd moom itam doo ci wax nee na képp kuy wax ci mbirum troisième mandat rek dafa fekk nga bëgg a yàq wala nga am lu la metti nee na moom am na loo xamante ne moo nekk ci kanam nañ ko laaj ci ay projet nañ ko laaj ci Sénégal émergent nañ ko laaj ci li nga xamante ne mooy opposition bu bees bi nañ ko laaj ci remaniement bi nañ ko laaj ci dundinu askan wi nañ ko laaj lépp loo xamante ne ñeel na askan wi waaye talul benn yoon li nga xamante ni mooy troisième mandat te nee na du ci tont waxoon na ko daaw ñëpp di xaar ren ñëwaat mu waxaat ko mu doon solo la nee na li nga xamante ne nag mooy mbas mi di coronavirus bi jamono gi lépp loo xamante ne na ko ci moom président dina ko def yemu ca nee lépp loo xamante sax bu jaree sax ñu xool vaccin boobee nga xamante ne ñi ngi koy wax dina ko def rek ba tey itam nee na bis bu vaccin bi ñëwee dañuy xool ñi nga xamante ne mooy troisième âge bi dañuy xool ñi nga xamante ne ñoom la feebar bi gën a sorol dañuy xool ñi nga xamante ne feebar bi ñoom la gën a tëral bu ko defee ñu daal di leen koy injecté xool résultat bi lan lay joxe waaye itam diis ci bopp nit ñi ba tax na boo ko waxee nit ñi dañuy tiit waaye nee na bu fekkee sax jar nañu egg fan nañ fa egg ndaxte li nga xamante ne mooy deuxième vague corona bi jéggi na dayoo itam te metti na waaye itam nee ñi nga xamante ne mooy waa kër docteur ak waa kër santé nee na dootu fa defati benn investigation ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllum koom-koom ndax lim génnee ci bilan wàllum tali wàllum hôpitaux ak yi nga xamante ne mooy projet 2021 bi riche na riche goo xamante ne nee na jamono gi ci secteur boo xam ne da ciy investir faw ñu won ko lu leer naññ ña fay yëngu faw ñu won ko lu pan yëngal dafay yëngu faw ñu wan ko loo xamante ne fees na bëtam ba noppi mu jaari ci investir waaye nee na jamono gi pas de xumbaay nii de rumbaay lépp loo xamante ne tere nañ ko fi dañ ko fi dakkal ba keroog mbas mi di fi jóge ba tey rek fële ca télévision Futurs Médias itam tëjum at bi gis ngeen noonu animatrice yi ni ñu nekkee noonu en toute complicité di wane seen joie naka ni démb ndéygéey daal di defal surprise ki nga xamante ni mooy jëkkëram papa booy jinee papa nag daal di bég lool ci ndéygéey nga da koy bàyyi ak Serigne Touba amatul moom lu mu war a wax ndéygéey ndéygéey itam di ñaani yàlla neen na ko ñëpp ñaanal ci 2021 bi mook tafa booy jinee mook papa booy jinee autant ñu daal di am tout tànk 2021 s'annonce avec des malheurs ki nga xamante ne aussi tamit mooy Cheikh Ahmadou Mamoun de Jama Ixlaas itam daal dinay génn àdduna te ci koy xamle xanaa kay di leen ñaanal suñu borom yërëm leen te xaare leen arjanay firdawsi inna lillahi wa inna ilayhi haajihuun moom mi nga xamante ne daf ñooy bégal moom mi nga xamante ne daf ñuy xamal suñu diine oustaz Tafsir Gueye naka ni sànq ci ay minute lañ jaar di jot ni ki nga xamante ni moo di soxnaam daa génn àdduna te naka ni démb si guddi ñi ngi ko gis ci tele yi itam muy wax lu am solo ci wàllum diine ak l'islam oustaz di ko encouragé te di ko may li nga xamante di ko ñaanal xolub muñ mi ngi noonu nag l'actuel xalif de Daaru Muxti mi ngi noonu moom mi nga xamante ne mooy wëju turu Serigne Bassirou Mbacke ibnu Maam no Faty Issa Diop itam jamono gi nag moo wutu ki nga xamante ni mooy a sëñ Abbas ci xalifa gi di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram am Mbacke Balla ma noonu noonu itam Omar Pène nekkoon fële nga xamante ne moom mooy ca RTS 1 troisième âge itam de suñu ginnaaw benn yoon daal di nañ koy supporter bu baax a baax Wally Seck daal nañ koy accueillir ca këram comme benn buur goo xamante ne macha allah yàgg fa yàq fa fële ca télé euh, fële ca 2STV tëgg na fa lu am solo loo xam ne tax na ñëpp pàkkar ñi deeta waaye ba mu demee këram ñu ne waaye deeta waaye xale yeeg paa yeeg maire yi ñëpp jug daal di koy akolaat ndax mbég arrêt sur image mi ngi noonu naka ni démb grand entretien ki nga xamante ne aussi mooy la famille Sall Marème Sall ak i doomam ñu ngi noonu toog jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi Iran Ndaw yàgg na ko wax 31 décembre jullit ñi moomu ñu ko waaye fii Sénégal dafa mel ne jullit yee ko moom boo xoolee 95 pour sonnee borom feet yi sax di catholique yi sonnuñu ci benn yoon daan wax ay vérité yu amam solo ba tax na rek képp kuy jullit baax na nga ciy bàyyi xel bu ama ama ama am solo Aïcha ba tey ginnaaw gi nga xamante ne itam am na xibaar boo xamante daal ki nga xamante ne donc moo doonoon étu moo doon étudiant di ci wàllum paj jamono gi nag mu feebar lool ah, li ko war a faj nag toll ci deux cent quatre-vingts millions de francs CFA ay xaritam waaye itam ñi nga xamante ne ñoo di ay médecins ñoo daal di réagir naka ni démb lépp loo xam ne jëm na ci wàllu réveil on dañ kaa daal di dakkal démb fële nga xamante ne mooy ca palais présidentiel gis ngeen loolee nga xamante ne def nañ ko uniquement pour daal di def li nga xamante ne mooy euh, soos ndimbal jëmale ko ci li nga xamante ne mooy seen xarit boobee nga xamante ne jamono gi nag sonn na lool di ko ñaanal ndimbal somme gi toll ci deux cent quatre-vingts millions de francs CFA waroon naa us help sot mu doon loo xamante ne rek jamono gii nag képp koo xamante ne nag yaa ngi gis li nga xamante ni moo di image yooyu ñu ngi ñaan nga dimbali ko ndax moom itam ndaw la waaye itam doon yëngu ci wàllum paj daan sauver ay vie tey ñu war ko sauver mu doon loo xamante ne jéggi na dayoo nee na ndax ñi nga xamante ni mooy Sénégal autorité yi yëngatuwuñu njiitu réew mi yëngatuwul ba tax ne ñoom ñu yëngatu yëngatu nii leen defee li nga xamante ni moo di seen 31 décembre nii rek lay demee chaque jour actualité chaque gën a fës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 mais ni Dakar instant faut prouver ne Dakar instant ci kanam la Inch'Allah. incha Dakar instant je leen na gars abonné vous actualité Dakar instant. sa le na trop Dakar instant. Dakar instant le xew ndax bañ le chaque jour bu ma information yi may soxla yépp jox muy dugg ci YouTube bi da ko rek. wax Dakar instant. mais jàmm. loo wax Dakar instant. Dakar instant Dakar instant. Dakar instant yéen boo yeewoo. moom laay seetaan. boo tëddee. moom laay seetaan. booy Instagram. Twitter. Dakar instant. Dakar à tout instant. maanaam ñu ngi koy ñu ngi koy baaxal ba mu baax. astuce. Dakar instant di leen bëggee rek.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 Adresse email gmail.com L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant.